seetlu ni dañoo am benn jafe-jafe si wàllum euh, tàggat infirmier yi parce que jafe-jafe bu ñu am mooy dañoo dem ba ba nga xamante ne relevé nañu niveau bi permettre infirmier yi ñu dem jàng si université yi am enseignement supérieur mais dañoo jékki-jékki ñu am ni école yu si bëre dañoo ne dootuñu defati examen d'état mooy lan dañoo nar a am diplôme yu bëre ñu ñu wasaare si biir Sénégal ñun association bi daal di wax ne ah loolu de bu ñu ko defee wàllum wér-gu-yaram dina mën a sooxe parce que bu boobaa duñu xam kan mooy kan parce que diplôme yi dañuy bëri te dootuñu mën a segg dootuñu mën a xam kan moo war a taxaw nit ki kan la ñu war a tuddee infirmier diplômé d'état ba ko defee ñun ñu jël suñu position ñu wax leen ko ñu ne ñun de bu ñu sañoon programme bi nga xamante ni si moom la ñu sukkandikoo pour jàng tàggat infirmier yi dafa ne bu ñëpp tàggatee infirmier ba pare balaa ñoo dem liggéey nañ leen tàggat ci benn anam mooy ñépp la ñuy boole ñu segg ñu xool kan mooy kan pour ñu mën a am yaakaar ni ñii ñu jël ñi mën nañoo taxaw askan bi ci taxawaay bu mucc ayib donc bu ko defee ñun ñu nee donc il faudrait que ministère enseignement supérieur ministère formation professionnelle ministère de la santé dañoo war a toog ñoom ñépp ñu xool naka la ñuy mën a def pour ñu mën a définir kan mooy war a réguler kan moo war a saytu ñii nga xamante ni ñooy génn pour taxawu askan bi ñun foofu lañ toll ndaam nag ordre infirmier amagul ñu ne ministère de la santé boobu ba léegi mi ngi koy def nañ bàyyi ministère de la santé wéyal taxawaay boobu ba ëllëg ak sibir bu ñu amee ordre bi wala ëllëg ak sibir bu ñoom ñett kuréel yooyu daje ministère yooyu daje ñu définir réellement naka la ñu mën a def pour filtre boobu mun a am mais Sénégal tolloogul fu muy joxe école yi gëdd pour ku si nekk mën a joxe say diplôme loolu nag ñi ngi koy wasaare si askan bi yëpp wasaare ko si directeur yi nga xamante ne ñoo ŋànk formation bi nañ toog xalaatal parce que tey ñoo ngi si système bi suba dañuy dem retraite wala suba dañuy bàyyi suñuy place direction jox ko ñeneen ñooñu est-ce que ñooñu dinañ doon comme ñun est-ce que ñooñu dinañ taxawaay bi ñu si am yaakaar bu ñu si amoon dinañ doon comme ñun ba nga xamante ne ñu bàyyi ñi nga xamante ku mu neex jàll parce que examen de wax nañu ànd mu nekk ñun ñëpp dañoo wax ne examen dafa yi nañ ko saytu buñ ko saytoo au moins ñooñu ñu nee jàlluñu ñu dem xool naka la lan moo tax ba jàlluñu ndax compétence ndax jàngu ñu jàngu bu baax ndax ñi leen tàggat nekkuñu au niveau wala déet en tout ñun lu ñu wax gum association mooy dañoo bëgg ñu continuer examen de certification bi pour ñu am benn évaluation unique pour l'ensemble des étudiants de ce pays là parce que tey jii bu ñu waxee système de santé bu ñu jëlee plan national de développement sanitaire day wax ni bu ñu sañoon suñuy day doon lépp lu ñuy def taxawaay si si wàllum faj day doon taxawaay bu mucc ayib te bu ñuy wax taxawaay bu mucc ayib ki koy def dañ ko war a topp topp mooy ki nga xamante ne mooy infirmier bi ñun tey jii mënuñoo comprendre que ni infirmier boobu nag nekk dans les structures sanitaires di am ay contrat yi nga xamante ne dañ koy renouveler at yu nekk ba muy dem juróomi at ba fukki at mais kooku est-ce que du point de vue social am na lu ko neex parce que mi ngi fayee ko mu ngi am payoor weer bu nekk est-ce que dina mën a dem banque pour lever pour mun a taxaw tabax këram est-ce que projet yi mu am yëpp dina ko mën a def bu fekkee ni koo xamante ne weer bu nekk dañ koy renouveler xamul déwén si nan laay nekkee déwén jéeg si nan laay nekkee yu demee noonu donc kooku du point de vue social day am problème kooku est-ce que am na xel bu dal pour liñ sant pour mu def ko si wàllum paj ndax dina ko def normalement bu fekkee ay xalaat yu bëri mi ngi gàllankoor ak moom si au niveau de la famille mais kooku tamit dafay am ay projet est-ce que moom bokk na si hôpital bi wala bokk si parce que day xalaat ne bés bu nekk mën nañ ko arrêté mu dem feneen donc kooku dañoo war a emploi boobu dañ ko war a sécuriser emploi boobu dañ ko war a jox bu mucc dañoo xool ni boo moytulee infirmier yi en tout cas ou bien personnel paramédical bi dong moo loolu la ñu ñoom ñoo orienté wu foofu ki am licence am am gëdd bu toll noonu bu génnee am compétence am dañ ko war a jël d'accord nañ nag contrat d'essai contrat à durée déterminée mais mu tendre benn dans contrat à durée indéterminée mu am un temps bien nécessaire bien indiqué buy wane ni infirmier yi boo jógee ci lii at bi at bu ci topp ci lii ngay dem bu si topp si lii ngay am nga xamante ne sax di nga am xel bu dal di nga liggéey correctement te du am benn problème ñun aussi si côté boobu CI wax na ko te ñun ANIDES toujours ñoo ngi koy waxoon nañ ko kilifa yi pour infirmiers yooyu ñu mun leen taxaw correctement dans notre système de santé pour que système de santé mun a renforcer ordre bu amulee gouvernement day am problème pour saytu parce que gouvernement mooy toog daale woo ñi nga xamante ne ñoo ŋànk benn profession nee leen am jox naa leen benn pouvoir bu ndaw pour yéen ngeen mën a saytu seen profession te saytu boobu loolu bu amulee ku jóg day taxaw ne man la donc moo tax ñun ñuy wax ni gouvernement na xaraat daal di mettre en place ordre boobu ndax mu mun a féex si yenn domaines ndax mu am ku koy xoolal am ku koy saytul am ku koy orienté ndax ñu am yaqin ni personnel boobu ñuy former personnel boobu di pratiquer xëy na dina doon personnel bu mucc ay looloo war a bi te mënuñoo comprendre que ñu nekk si système boo xamante ne bëri na ay catégories socio-professionnelles ay docteur ñi ngi fi ay chirurgien dentiste ñi ngi fi ay pharmacie ñi ngi fi pharmacien ñooñu ñëpp am seen ordre yow benn catégorie nga segg ko nga ne amul ordre te yow nee nga ni danga bëgg a système bi renforcer wu ah ñun dañuy wax ni objectif boobu munoo ko atteindre parce que bu boobaa am na si ñoo xamante ni ñoo ëpp si dispositif bi mooy infirmier yi ñooñu boo leen organiser wul sa mboxloo bi day bëri te li nga bëgg si anam bu rafet pour qualité doo ko mës a am beneen bi ñu wax benn direction bi nga xam ne day dem nekk ci ministère de la santé mais direction bu fekkee ni infirmier ñoo war a pivot yi yooyu ñoo ëpp lim ci biir système bi boo demee ci poste de santé infirmier district sanitaire infirmier direction régional infirmier nga dem ci hôpital yëpp infirmier mu ngi fa nga dem ba ministère de santé infirmier bi te amul benn direction benn kuréel boo xam ne mi ngi ministère de la santé buy jël loolu seen préoccupation donc boobu tamit dañuy wax ni ñooñu ñan kan moo leen waxal ci réunion yi ñooñu kan mooy jël seen préoccupation te bu fekkee ni ñooñu jëluñu seen préoccupation ci ci instance yi ci réunion yu mag yi ñooñu kenn amul ku leen waxal ci réunion yi ci instance yi bu boo boo boo moytulee ñooñu toujours seen damin du rafet toujours ni ñuy nekkee noonu la ñuy nekkee ba faw te bu fekkee ni dëkk yu nekk dans la sous-région comme nga dem Togo ay beneen yu demee noonu seen ministère de la santé jël nañ ko parce que ñu xam nañu kuréel boobu lan la leen mën a apporter kon tey jii moo tax ñu wax ministère de la santé si pro si organigramme am naka xalaat mu teg ko parce que am na ay diir ay at si ginnaaw directeur ressources humaines bu ministère de la santé convoqué woon na benn réunion di ñu wax ne naka la ñu mën a def pour direction boobu nekk au ministère te si biir waxtaan boobu dañ doon seet fan lañ koy rattaché parce que dañoo ne est-ce que dañ koy yóbbu direction des ressources humaines est-ce que dañ koy yóbbu direction générale de la santé wala cabinet si foofu lañ tolloon ñun ñu amoon yaakaar ni bu ñu génnee si réunion boobu dinañ ko def waaye mat na juróomi at ëpp na juróomi at léegi kenn xalaatatu ko xëy na réunion boobu conclusion yi euh, recommandation yi mi ngi tey si tiroir yi donc bu ko defee loolu bu ñu ko appee aussi tout lenn day renforcer le système de santé parce que tey jii infirmier yi dinañ xam ne am na fu kuréel bu leen waxal am na kuréel boo xamante ne si mën nañu wéeru pour orienter leen dans leur pratique te dinañ ci yaakaar ni ministère de la santé am na kuréel boo xam ne nekkal na leen fa pour nga xamante seen décision seen préoccupation yépp yoo xamante mën nañ ko am am na ku leen ko mën a waxal am na ku leen ko mën a saytu donc looloo mbébét en tout cas ñu yaakaar ni war nañoo mun a créer direction boobu à l'instar yeneen dëkk ñuy am pour ñu mun a renforcer notre système de santé pour ñu mun a dëgëral en tout cas wàllum taxawu askan bi si wàllum faj si biir dëkk bi